ku juum ba yokk ci julli ga mbaa mu wàññi ja sujjóot ñu koy sujjóotloo ak lu ci aju ci xeeti àtte lay wax ci dog bii soo juumee ba wàññi ci julli ga loo xam ne sunna la sunna ba mën naa nekk bu dëgër bu ñu feetli mën naa nekk bu woyof bu ñu feetliwut jàppal ne doon sunna dong moom lu mu dëgër dëgër bàyyi ko du tax a sujjóot lu may nag nga bàyyi yelu wala biral yelu mbaa biral ku ci nekk daa beru di sunna bu ñu feetli te kenn ko ci bàyyi rek am na sujjóot biñ la ciy digal boo xasee weesu yooyu yaar nag benn sunna képp lu mu dëgër dëgër dëgër du tax ñu digal la sujjóot lu may nag boo àggee ci allahu akbar yi ñu wax ci julli korite ak tabaski boo weesoo bu jëkk ba kabar ya ngay kabaraat laata ngay jàng faatiha moom dañ leen a diisal lool ba nga xamee ne boo ca bàyyee benn rek ñu digal la nga sujjóot dana ko wax ca foofa kon mën ngaa takk ne wàññi lu mat ñaari sunna mbaa mopp ko dañ cee digle sujjóot ñaari sujjóot ci bala ngaa sëlmal ba tey boo dollee ci wet wàññi ci wet donte sax la nga wàññi day sunna booyef nga xam ne bu doon moom dong doo ko sujjóotali waaye yokk dolliku na ci ci wet dañuy seet yokk ba ci wet ak dolli nga ci wet digal la nga sujjóot xabla salaam ba tey fu ñu la digaloon biral nga yàllu fa yàllu bu suufee suufee boo xam ne yow sax déggoo ko woon ci say nopp foofu da ngay sujjóot xabla salaam ndax dañ koy jàppe ak wàññi ndax biral ma fa dëkkoon da nga faa def yow yàllu ma gën a suufe kon na ngaa wàññi ak nag allahu akbar yooyu ñuy wax ci julli korite mbaa tabaski boo weesoo bu njëkk ba bala ngaa jàng faatiha benn boo ci bàyyi itam ñu digal la sujjóot xabla salaam saa yoo dégg xabla salaam nag mooy nga julli di taaye di taaye ba nga xamee ne wax asalaamaaleykum rek moo ca waroon def nga bañ a wax nag asalaamaaleykum jë te sujjóot ñaari sujjóot baabu waat taaya ja doora sëlmal lee mu ne walaw shakkan nag mooy doonte sax wàññi nga ko wàññi danga koy sikki sàkk rek ndax wàññi nga ko wàññiwoo ko du tee nga jàppe ko ne wàññi nga lu am am la dal di koy sujjóotal xabla salaam walaw takarrara ak doonte baamu na day wane ne juum nga nga juum mën naa baamu yaar yoon bàyyat ndax mën ngaa juum ba def loo xam ne digal nañ la ca sujjóot nga dellu juumaat ñu digalaat la sujjóot yooyu yëpp da nga koy boole nag def rek ñaari sujjóot mu yóbbu mboolem xeeti njuumte ya nga juumoon duñu wax ne njuumte bee da nga koy defal ñaari sujjóotam defal njuumte bee ñaari sujjóotam dañuy boole mboolem xeeti njuumte yëpp rek defal leen seen sujjóotu jamooj waaye nag ba juumee sujjóotal ko gannaaw ba mu wëlbati ku juumaat juum bu yees nag kon juum bu yees ba itam da koy sujjóot daadal sujjóotu boppam mel ne nga ànd ak sa ilimaan mu sujjóotu xabla salaam fekk mu raw la nga ànd ak moom daal def sujjóotu xabla salaam ba kon xam nga def nga benn sujjóotu xabla gannaaw ba nag ba ngay fay lam rawee nga yokk mbaa nga wàññi ko it yokk boobee mbaa nga wàññi boobee da nga seet sujjóot bañ la ci digal nga def ko ja waaye doo doyloo rek ni sujjóot doon naa ànd ak ilimaan ba muy def xabla salaam xam nga dañ ne sujjóotu xabla salaam taay ji ci mujj boo taayaa ba wax asalaamaaleykum rek des nga xam ne jul nga ci yonante bi ñaan nga itam boole ja foofu ngay defee ñaari sujjóot ni ñu sopp na nga baamuwaat taay ja ndax bëgg silmal bi faaw mu topp taaya mu ne nag boo baamoo taaye ja bul baamuwaat ñaan nga taamuñu nga baamu ñaan nga da ngay cee doole nag bu sa ilimaan waxee asalaamaaleykum te fekk na yow jotagoo woon a ñaan danañ sib ngay ñaan ba àggal door di wax asalaamaaleykum ñetteel ba mooy ngay naafila ci jumaa ji ilimaan ji génn jëm si ci xutba bi fekk yow yaa ngi naafi la ñu wax la ne la da ngay gaaw rek àggale ko te déglu xutba bi foofu daañu si boo taayaa ngay ñaan ñoo bëgg rek boo àggalee taaya ja nga daal di sëlmal danañ ci dolli beneen ñeentee sax te mooy nga doon julli far ñuy liqaamalal ilimaan ci jàkka ja mbaa ci barab boobee ndegam mën ngaa gaaw àggale julli ga te ràkk bu njëkk bi du la raw dañ lii digal nga gaaw àggale julli ga dali gaaw bokk ca julli ga ñuy liqaamal ilimaan foofu nag bu sa taay jeexee rek duñu taamu ngay ñaan doo rasalmal di ànd ci julli farata ga dañoo bëgg rek nga daal di gaaw bu sa taay jeexee nga salmal dugg ca julli farata ga julli korite mbaa tabaski allahu akbar gu jëkk ba armal la moom taxul ñu wax waaye nag kabar ya nga cay teg door a tàmbalee jàng fatiha kabar yooyu benn bu ci nekk dañ ko réyal lool nga xam ne benn rek boo ko ci bàyyee dañu doon doon benn da nga ko sujootal da nga ko sujootal xabla salaam ndax la mu nekk ak wàññi boo dee julli farata ni ki suba mbaa ñaar rakk njëkk ca timis mbaa ñaar rakk njëkk ca gee mbaa julli ajjuma bëleel ga faatiha ja sunna la li mu doon doon benn nag soo ko bàyyee ne ki nga yalu ba xës sa gurugoo nga xam ne dabaatal gi wéy na da ngay jàpp ne wàññi nga ndax yalu ma nga fa def biral mel ni digaloon moo gën a xumb kon jàppal ne saa yoo bàyyee biral def fa yalu te dabaatal nga wees da ngay sujjóot xabla salaam ndax jàpp ne wàññi nga waaye nag lay tax ba nga bàyyi biral def fa yelu ñu digal la nga sujjóot xabla salaam day fekk nga defoon yelu ba gën a suufee maanaam ba ngay jàng sawraam yi rek mooru yëngudu waaye yow sax déggoo ko woon ci sa nopp de su fekkoon ne fañ la digale biral yelu nga sax waaye yow ci sa bopp yaa ngi ko doon dégg kon xaw naa jege biral loola doy na ba aajowoo ngay sujjóot xabla salaam ndax ndegam biral fa waroon nekk ñu ne woon gën gaa néew biral mooy nga di ko dégg ku sës ci yow di ko dégg yow nag tañ la digaloon biral nga wax rek ba di ko dégg yow doom te ku sës ci yow du ko dégg kon yellu nga àggoo ci biral nga ñu waxoon waaye nag du tax ñu digal la ngay sujjóot xabla salaam waaye nag fañ la digaloon biral boo fa yemoon ci yëngal rek saw làmmiñ nga xam ne yow ci sa bopp sax déggoo li nga doon wax waaw kay foofu lañ lay diggale sujjóot xabla salaam saa yoo bàyyee jenn taay rek jàppal ne bàyyi nga taaya akub ca taayam te lu ca nekk sunna la daañu ko digal nga sujjóot xabla salaam waaye bala noo jàll nu xoolaat lee mu ne wu jahrin bi fardin maanaam fu la digaloon biral fu waaye du farata mel ne mboolem naafilay guddi yi dañ caa digle ak biral sopp ko ja rawante na weetar mi nga xamee ne julli sunna yi moo ci gën a dëgër rawante na itam julli korite tabaski ñoom it dañ caa digle ak biral te julli sunna la ñu yooyu nag bàyyi biral ga du tax ñu digal la nga sujjóot xabla salaam bàyyi biral ci julli farata rek te la ñuy digle sujjóot xabla salaam waaye julli goo xam du farata moom ñu digal la ci biral te defoo ko du tax ñu digal la nga sujjóot xabla salaam leen tam mat naa xam faatiha ja mooy la nga xamee ne soo ko biralut ci julli farata ga ñu digal la nga sujjóot xabla salaam rawante na mu ànd ak saar wa nga xam ne biralu ci kenn waaye jàppal ne su fekkoon ne faatiha ji aw noo yoon ndax biral nga ko saar wa rek nga biralut bañ a biral saar wa ci benn yoon dong du tax nga sujjóot su fekkee nag daa am ñaari rakk yoo xam ne bu ci nekk ba ngay jàng saar wa di laa digaloon biral ga te biraloo ko yam rek ci biral faatiha ja kon dañuy boole bàyyi nga nga bàyyi biral yaari saar ya digal la nga sujjóot xabla salaam waaye bu fekkoon ne benn rakk ba moom faatiha ja aw na yoon biral nga ko saar wa rek nga biralut te defaatoorul ci rakk ba ca des nga xam ne benn saar rek daal moo am woo xam ne dañ la caa digaloon gërëm te yow nga yelu ko loolu du jara sujootal xabla salaam boo koy sujootal xabla salaam rek mu daal di yàqu loolu moo tax ñu ne la woon bu ñu nee biral sunna la dana wutee ci na mu dëgëre ca faatiha ja ak na mu dëgëre ca saar wa faatiha ji moom moo xam moom dong la moo xam daa ànd ak saar wa suñ la digalee biral ko julli farata nga juum ba biraloo ko ba biral nga wees dañ lay digal nga sujjóot xabla salaam waaye saa yu faatiha ja awe aw yoon saar wa rek moom lañ digle woon biral ñu yelu ko tamit ci benn rakk doom loolu kenn du ko sujjóotal bi sujjóotee xabla salaam ngir ñàkk ñàkk biral saar wa doom rek julli nga yàqu kon nga takk foofu ne sujjóot xabla salaam moom lay tax ñu def ko mooy wàññi kese wala dolli ci wet wàññi ci wet mel ne nga yokk ab ràkk ci ràkkay julli ga ngir juum ba noppi nag fàtte woona taaya taayi digg mbaa nga fàtte woona jàng aw saar ci ràkk bu jëkk mbaa bu ñaareel kon dolli nga ci wet wàññi nga ci wet lu mel noonu ci la ñuy digg sujjóot xabla salaam su fekkee da ngaa yokk dong nag waaye wàññiwoo ci kenn wet foofu li lay digalee li ñuy wax bax de salaam saa yoo déggee bax de salaam rek mooy da ngay julli ba taaya ba wax asalaamaaleykum ba noppi daal di sujjóot nag ñaari sujjóot gannaaw ñaari sujjóot ña nga baamuwaat taaya ja baamuwaat sëlmal ba misaalum juum ba dolli nag moom mi ngi mel ne rek nga juum ba yokk benn ràkk ci julli ga mbaa yokk ci sujjóot mbaa nga am ñaar ràkk daal di sëlmal ngir juum jug daal di àggale moom daal xeet ndollin daa bari dool neenal kese nag moom la ñu sujjóotal baax de salaam ku doon sikki sàkka ci def na nangam am defu ko ni ko muy sikki sàkka rukkoo na wala rukkoowut mbaa sujjóot na mbaa sujjóotut mbaa jàng na faatiha mbaa jàngul faatiha dañ koy wax jàppal la gën a wóor ne defoo loolee daal di koy def kooku nag daañu ko digal mu sujjóot bax de salaam ndax xëy na boo demee loolee mu jàpp ne defu ko fekk na mu def ko ba noppi ak itam bu dee sikki sàkk ñaata rakk la julli te nekkul kuy jax-jaxi maanaam am xelam baax na dafa am xelam baax na bu dee sikki sàkk benn rakk la julli wala ñaar ñu koy wax ne ko benn moo wóor jàppal benn jàll ci ñaar ya bu dee sikki sàkk ñaar ñett ñu ne ko ñaar moo wóor jàll ci ñett bu dee sikki sàkk ñett ak ñeent ñu ne ko ñett yee wóor jàll andi ñeenteel yooyu yëpp nag bu jullee ba sëlmal daañu ko digal mu sujjóot baax de salaam ndax toroxale ko saytaane ku nekk ci julli ba yàgg muy sikki sàkk gi mu nekk gan la mel ne mu doon def safaa wetar dem ba yàgg xamatut ci safaa la nekk wala ci wetar la nekk dañ koy wax ne ko defal li gën a wóor jàpp ne ci safaa nga nekk àggale ko ba mu àgg nga sujjóot ba xam ne salaam door a indi wetar ba tey bu doon sikki sàkk gannaaw ba takkusaan jotee te fekk julliwutoon tisbaar mu ne nag naa julli tisbaar takkusaan di julli ba yàgg muy nattable daa noppi ca tisbaar ba ñëw ci takkusaan am ca tisbaar rek la nekk àggagut day jàpp lu gën a wóor ne ci tisbaar la nekk daal di koy àggale te sujjóot ba'da salaam door a jàll ca takkusaan loolu moom say boo awale ko ci mboolem yaari julli yu demee noonu nga leen doon julli mujj xamatoo goo ci nekk da ngay jàpp ne yaa nga ci bu njëkk ga daal di koy àggale te boo ko àggalee nga sujjóot bax de salaam loolu indi nga ca sasoon fu ñu ko digale yalu ni ki tisbaar mba takkusaan mu bëral fa bëral goo xam ne weesu na moom rek di ko dégg ak suuf ci moom rek àgg na kay ci ku ko soree lu toll ne sàppe it di ko dégg fañ ko digaloon yelu bu fa defee biral gu toll noonu dañuy jàpp ne kon dafa yokk na sujjóot bax de salaam xam nga dafa am gën jaa néewi biral te moo doon moom ci boppam mu di ko dégg ci noppam ak sës ci moom rek taqoog moom di ko dégg loolu mooy gën jaa néewi biral bu fekkoon ne daa yam ca loolu rek ca fañ ko digale yelu ki tisbaar ba takkusaan kon du aajowoo mu sujjóot waaye nag bu ko xumbalee ba mu weesu loola nga xam ne ku ko sore ne woon lu toll ne sàppe di ko dégg kon daañu ko digal mu sujjóot baax de salaam ndax yokk la bu fés a fés fañ ko ne woon daal biral fa bu fa yaloo yalu goo xam ne aw làmmiñam dong moo doon yëngutu waaye moom sax diggu ko woon kon na sujjóot xable salaam ndax wàññi na bu wér fu ñu ko digalee itam wax ci suuf mu wax fa ci kaw yokk na waaye nag bala ñu ko sujjóotloo baax de salaam daa yëkkati kàddoom ba weesale ko boppam nga xam ne ku ko dàndoon lu toll ne ni sàppe yi soreeg moroom ma di dégg la muy jàng kon moom yokk na bu wér na sujjóot baax de salaam sikki sàkk ak jamoo lu ci nekk mën naa am muy takkoo gu waaja maanaam jëmm ja mën naa am itam muy bañ a takkoo ak moom sikki sàkk moom daf lu daf lu xam loola lu mu doon ba xam daa yokk ba xam daa wàññi jamuñ nag mooy dana xam la mu def njuumte la loo xam ne xam na ko benn mu di yokk mbaa mu di wàññi waaye moom wóor na ko ñooy ñaar nag bokkuñu àtte ki nga xam ne moom sikki sàkk dafa takkoog moom ni ki du xam benn wala ñaar wala ñaar wala ñett wala ñett wala ñeent mbaa rek muy sikki sàkk sax ndax dafa yokk am dafa wàññi waaye du ci xam dara bu fekkee ne bis bu ne du jëndal bu dégg bëccëg lu mu néew néew mu dal ko ca benn yoon kooku sikki sàkk dafa takkoog moom dañ koy wax ne ko del jàpp yow la gën a bari lañu waxoon ne booy sikki sàkk lu néew ak lu bari da ngay jàpp la néew ku bari sikki sàkk nii moom bokku ja dañ koy wax ne ko jàppal ne julli ga mat na jàppal ne julli ga mat na dara sikku ja te boo sëlmalee nga def bax de salaam toroxale ko seytaane lu mel nii moom li ci ëpp ci seytaan lay bàyyi ko yàq xelum kooka ba mu di julli rek du xam la muy julli lan la du xam juum naam juumut yokk naam daa wàññi li mu rakk yam julli du ko xam ku mel noonu daal ndegam bis bu ne lu néew néew mu daf ko benn yoon na jàpp ne bu ko toppee rek mën na ko indil tëlbati yàq am xelam yàq yi jaamu yàlla am na ko wan gannaaw te la mu def rek mu doyloo ko jàpp ne julli ko mat na dara sikku ca da sëmbalee nag sujjóot bax de salaam toroxale ko saytaane bu fekkoo ne nag moom day def léeg-léeg rek mu gén gi dal ko muy sikki sàkk ba xam benn la julli wala ñaar wala ñaar mbaa ñett mbaa ñett mbaa ñeent kooku mooy àtte ba nga waxoon ne day jàpp la gën a néew te mu wóor ko dool ci nag ba mu mat bu dee sikki sàkk bennam ñaar benn rek moo wóor na jàll ci ñaar ya wéy bu dee sikki sàkk ñaaram ñett la gën a néew muy ñaar moom lay jàpp ne moom la julli jàll ba mu mat ba noppi nag mu sujjóot moom it baax de salaam kay takkoo juum nag ak saxu mooy ki nga xamee ne la muy juum moom dana ko xam waaye du jëndal guddi bëccëg gune lu néew néew mu dal ko ca benn yoon nga xam ne bu dee yokk dana ko xam bu dee wàññi dana ko xam waaye dafa takkoog moom nag lu néew néew guddeeg ba ci gune mu dal ko ca benn yoon kooku dañ koy wax ne ko da ngay seet la ngay juum bu dee lu ñu mën a defar nga defar ko te gannaaw boo ko defaree jégg nañ la duñ la ci digal benn sujjóot duñ la ci digal sujjóotu baax de salaam duñ la ci digal sujjóotu xable salaam bu dee lu ñu mën a defar moom defar ko bu dee lu ñu mënta defar nag nga bàyyi noona misaalum fa nga xamee ne mëneesu koo defar te da koy bàyyi noona te it taqoo tax na kenn du ko wax ne ko sujootal mooy lu mel ne mu taqoo juum ci rakk bu jëkk mbaa bu ñaareel day fàtte jàng sarwa baru koo mbaa bu amee ñaari rakk fàtte taaya taayi digg ba ay loxoom ak ay bëti woomam tàggoog suuf njuumte lu mel ne yooyu yaar amul defaraat ndax dañ ne woon ku def loolu day sujjóot rek xable salaam weccee ko taayi digg tam wàññi mbaa saar woon wàññi te kii nag moom degam loolu dafa taqoog moom dañ koy wax ne ku jëggal nañ la sujjóotu xable salaam ba du jar nga di ko def fekkoon day gind rek nag di ko dal kon saa yu ko dalee rek ñu digal ko sujjóot xable salaam na nga ko jàngi woon ca téere yële fa nga xamee nag moom bu tax ko di ko juum bis bu nekk it dana aajowoo defaraat bu ko defaraatee ba àggal nag ñu jëggal ko du aajowoo muy sujjóot mooy lu mel ne mu sax rek ci bis bu ne dana am ràkk boo xam ne bu koy julli day sujjóot benn sujjóot ba fàtte bu ñaareel ba jóg ba taxaw jonn ci ràkk ba sus ca booba loolu da koy dal bis bu nekk kooku moom des koy defaraat ndax daa aajowoo defaraat dañ koy wax ne ko su fekkee jotugulaa rukkoo da ngay delluwaat sujjóot sujjóotu ñaareel ba jóg nag jàll bu sa julli àggee xam nga ne am na ndolleen waaye kenn du la sujjóot loo dara dañ lay jéggal ndax li lay dal saa yu nekk su fekkoon ne nag day fàtte sujjóotu ñaareel ba ba dem ba ci ràkk ba ca topp ba rukkoo ca ba siggi door koo fàttaliku dañu waxoon rek lay doon mooy ràkk boobee mu fàtte sujjóot ba mu bañ koo wàññiwaale ci julleem te ba sës ca moom wecci ko boo toppee julli ga benn mu boole dolli ci wet wàññ ci wet wala mu dolli kese te loolu daan am sujjóot da da daal jindi rek di ko dal waaye nag bu fekkee da koo takkoo moom di ko jéggal ne ko defaraatal rek niñ la waxe waaye du jàngee sujjóot benn sujjóot du xable salaam du bax de salaam kon ki taqoo juum nga xam ne moom la muy juum dana ko xam nga xam ne benn day juum bay bàyyi sunna mbaa muy juum bay bàyyi farata loolu mooy àtteem juumte bu ñu mën a defar na ko defar bu ñu mënta defar mu bàyyi ko noona te nag sujjóot bañ daan digle ci juum googee jégal nañ ko ko ka nga xamee nag moom dafa taxaw sikki sàkk du xam la mu def lu mu moom nga weesu woon ne lu mu def rek na jàpp ne loola baax na bàyyi ko noona te bu sëlmalee mu sujjóot bax de salaam ndax toroxale ko seytaane